salut les amis ziar naa bu baax a baax daleen leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees ci kàllaama wolof. alors tey nag ñoo ngi ci saison 8 épisode 10 ñu war a découvrir leneen lu bees loo xamante ni dañ ko defaree Sénégal encore maanaam application bi lay dimbali di la fàttali waxtu julli alors moo ngi tudd nag waxtu salaat application bi nag suñu expert iOS mag bi bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté moo ko defar maanaam Ibrahima Ciss alors sama turandoo nag bokk na si ñi nga xamante ni ah, dañuy tasaare bu baax xam-xam ci réseaux sociaux yi saa su nekk dama koy gis ah, muy partager ay conseils di partager ay codes sax des ak application yi nga xamante ni ah, mu ngi koy defar te loolu nag bokk na ci li tax tey ñu invité ko Ibrahima alors Ibrahima bi nag bi mooy ñetteelu yoon je pense ñu koy wala ñeenteelu yoon sax ñu koy invité ci podcast bi alors min na podcast bi et je pense que auditeurs yi aussi nañ ko bu baax a baax alors nuyu nañ la bu foo Ibrahim sama turandoo maa ngi lay nuyu di lay ziar. Euh, j'espère que tu vas bien. Mhm. di nuyu tamit euh, sa auditeurs yëpp di leen ziar. macha allah macha allah macha allah ñu ngi lay ziar ñun tamit bu baax a baax di am contenté bu baax di la ci podcast bi comme ni ñu koy defee euh, saa su nekk et je pense que tey gars yi dinañ découvrir après yenn affaires yoo xamante ni dinañ ko def ak yow ci fin bi incha allah alors du ma spoiler pour le moment mais dinañ ko wax après Aïcha Ibrahima ñu dem donc découvrir application bi nga xamante ni moom nga defal mu tudd waxtu salaat. alors xam nañu ne euh, communauté bi yëpp nag xam nañu bu baax kan mooy euh, Ibrahima euh, waaye saa su nekk comme ni ñu koy waxee ci biir podcast bi dañuy présenté wu rek. pour que mhm. gars yi xam parce que am na ñoo xamante ni à chaque fois dañuy ñëw bees ci podcast bi duñ xam kan mooy kan tu vois donc du coup fàttali bi mhm. amul solo mhm. donc est-ce que mën nga présenté wu rapidement wax ñu kan mooy Ibrahima Ciss vite fait. bien sûr bien sûr alors euh, Ibrahima voilà fii laa juddoo yaroo fi màggee fii euh, j'ai fait tout mon cursus scolaire ici à à Dakar principalement euh, donc euh, informatique en tout cas lu ma lu ma yàgg intéressé la mais euh, dama ko commencé très tardivement man bokk ma si ñoo xam ne dès l'âge de de douze ans commencé nañ coder pas du tout. je pense que j'ai commencé à coder euh, à l'âge de quoi vingt deux ans yooyu noonu ah. ok cool. d'accord donc ça fait plus d'une euh, bonne dizaine d'années maintenant j'ai euh, bi ma découvrir en tout cas tout ce qui est programmation informatique euh, yàggul noonu trop trop trop. ok voilà donc bi ma amee sama parce que man en fait j'ai fait à la base en tout cas. ay études en électronique et électrotechnique la la defoon. Euh, donc euh, loolu laa spécialisé woon non hmm. donc même sama bac sax euh, j'ai eu un bac en en en électrotechnique maanaam bac t et puis après la mon BTS j'ai eu un BTS en électronique aussi. donc euh, c'est par la suite que la ma informatique bi duggoon vraiment parce que juste avant sama sama BTS même avant mon bac même euh, je me rappelle benn année sama sama sama premier bac lu ko yàq loolu la parce que j'avais découvert euh, l'outil informatique n'est-ce pas <laughs> ah euh, ah commencer voilà doon commencer le design et cetera ma dé ma découvrir ko ça chamboulé carrément sama sama année boobu noonu o bac n'est-ce pas <laughs> donc lieu ma jàng dama doon passer sama temps tout mon temps devant la machine di jàng euh, voilà à faire du design euh, des maquettes graphiques euh, et cetera donc euh, passion bi fa fa la jóge et puis après mon bak après mon BTS euh, mu continuer ko quand même mm. commencer jàng programmation entre temps Euh, bien avant mon BTS, en parallèle, commencé jàng programmation HTML, sur le site du Zéro, n'est-ce pas? Euh, JavaScript après comme ça de fil en aiguille ngay découvrir yenn affaires yi par exemple apporter du dynamisme avec PHP. nga dem jàng yenen langage comme euh, du Ruby par exemple jàng Ruby on Rails. après euh, voilà yàlla def ma am euh, ordinateur Mac en 2013 en 2012 plutôt. après ma commencé euh, maintenant di euh, di capitaliser en mag bi parce que je l'avais acheté à plus de cinq cent mille bah donc euh, après comme ça ma commencé jàng ay objectif C pour développer des applications sur euh, okay. iOS et euh, macOS et puis comme ça après ma ma spécialisé en tout cas sur tout ce qui est développement iOS suñu borom tamit dimbali ma si Euh, ma ma intégré en tout cas ay entreprise yoo xam ne principalement loolu laa fa doon def. Euh, du développement euh, iOS ba fi mu toll nii ko ok macha je pense que jaar-jaar bi am na solo trop comme ni mu koy waxee à tout moment day inspiré jeunesse bi pour que ñu mën a xam ñu mën a xam ne lépp mën na nekk man li may dégg li may gën a attiré sax ci wax bi mooy que ne autodidacte bi c'est-à-dire la ngay mën a jàngal sa bopp. xam-xam bi léegi mën mhm, nga jàngal sa bopp et je pense que loolu moom ma gën a marqué euh, ci wax bi nga wax léegi mun nga jógee fu mu munti nekk mais mun nga jàng li nga xamante ni mooy affaire technologie ak xam-xam bi léegi dafa yaatu mun nga ko fekk sur internet fekk fu nekk boo amee ittee rek mun nga am xam-xam bu la neex te mun na la jëriñ après et je pense que loolu am na solo effectivement mm. effectivement ñun suñu domaine mooy euh, le seul domaine où euh, t'as pas besoin de diplôme ni euh, voilà ay ay diplôme bac plus cinq bac sept et cetera généralement je, dis euh, des fois diplôme bi dina la jëriñ. mais euh, tu peux être tu peux te la preuve man euh, après le BTS benn année rek laa def euh, et pour faire benn licence en téléinformatique. Ouais. licence bi ba léegi soutenir ma ko pour te dire. donc euh, après euh, et ça c'était en 2012 okay. donc 2012 euh, laa gëj si boobu école soutenir uma sama licence di euh, yeneen diplôme yi xalaatuma ko tu mhm. parce que fi mu ne nii voilà. <laughs> non mais xaalis lañ lañuy gën a gis que <laughs> que delluwaat si banc école yi. tu vois non je man bi ma man bi ma paree sama master doctorat may neen bu bu leen ko tuddati man damay wuti xaalis. <laughs> voilà mi ngi voilà donc je dis euh, je dis à chaque fois que ne compétence lañ soxla tu li nga xam ak li nga mën a def loolu moo am solo et je pense que dina nekk benn épisode boo xamante ni maa ngi koy waajal pour wax ci euh, ñi nga xamante ni am nañ bac nag lañ leen mën a orienter pour fexeel ñu comprendre que ne affaire bi nekkul ci ay diplôme kese mais compétence la lan nga bëgg def il faut que nga dem chercher ci ko pour am ay compétence ci ci loolu et je pense que loolu tey àdduna ubbeeku na ubbeeku boo xamante ni euh, amatul benn barrière euh, kenn ku ci nekk Euh, fi sa euh, fi sa nu mu ko mën a waxee sax fi sa ñambaar ak fi sa itte yem rek foofu nga yem ci xam-xam quoi mm-hmm. mais amatul benn mm-hmm, limite quoi que am na solo trop mm-hmm. quoi alors Ibrahima tey nag li ñu fi indi mooy dañ am benn application boo xamante ni bu ama am solo la boo créé man mi installé naa ko gis naa ci sama bopp te hyper bien des fois nga dugg ci euh, nekk di nekk ci machine bi di kurti kurti ba fàtte waxtu julli yi tu vois et je uh-huh. pense que loolu uh-huh. am na solo bu baax a baax et je pense que déjà sax au-delà de euh, application bi li muy jëriñ nit ñi man je pense que yàlla dali si bindal tiyaabu yu bëri ah tiyaabu yu bëri bëri bëri bëri te loolu am na solo <laughs> alors Ibrahima lan mm-hmm. mooy waxtu salaat ak naka nga def ba am xalaatu defar application bu ni mel mm-hmm. waaw kooku moom dama si sawar a tontu bu baax a baax sax alors waxtu salaat <laughs> mm-hmm. euh, comme ni nga ko waxee ah benn application la donc euh, application la boo xam ne comme son nom l'indique euh, tour bi déjà euh, man bépp application bi may defar dama si yokk sama identité maanaam je suis sénégalais donc euh, même le nom de mes applications ça sonne sénégalais c'est pas des noms yoo xam ne c'est des noms français wala des noms euh, anglophones okay. c'est des noms c'est des noms euh, purement sénégalais nga xam ne keneen ku ko dégg ku dul sénégalais il va se poser des questions Euh, jéem a renseigné bu fekkee ne application bi intéressé na ko jéem a renseigné mhm. c'est quoi exactement et et euh, voilà c'est en tout cas man ma manière à moi d'exporter en tout cas sama culture d'exporter sama langage okay. n'est-ce pas mhm. donc waxtu salaat waxtu comme ni nga koy xamee mooy heure salaat mooy prière donc c'est heure de prière principalement donc waxtu salaat daf lay won principalement Euh, benn application mag la donc euh, c'est pas disponible sur iOS et après peut-être dinaa dinaa tontu pourquoi c'est pas disponible sur iOS mais c'est c'est disponible que sur mag OS maanaam si ordinateur mag lay fonctionner euh, donc daf lay wan heure de prière yi non seulement daf lay wan heure de prière par jour mais mën na la woon heure de prière weer bi yëpp n'est-ce pas maanaam mois courant bi mën na la ko wan tamit et puis euh, utilisateur bi tey mën na tànn notification bu mu parce que waxtu bi su jotee euh, mën nga wax waxtu salaat mën nga wax application bi soit mu nootal la pour wan la ne waxtu waxtu bi jot na timis takusaan wala timis gee euh, wala fajar mën na la defaral benn notification système mooy maanaam mooy alerte yooyu noonu bannière yooyu noonu di génn si si mag bi aussi quand tu as une notification wala mën nga ko wax simplement que bul ma notifier waxtu bi su jotee donc yooyu yëpp dama jox utilisateur bi la possibilité de customiser ça. Okay, et mis à part même customisation ou notification yi euh, waxtu yi c'est en arabe euh, c'est en donc utilisateur bi bu fekkee ne arabe bi ça ça euh, ne parle pas par exemple fii nii Sénégal euh, fajar tisbaar timis takkusaan géewe la ñu xam. yooyu noonu yëpp mën nga ko customiser nga wax par exemple euh, par exemple heure de pierre bii bëgg naa nga tuddeel ma ko tisbaar bii nii nga tuddeel ma ko gée et cetera et cetera donc euh, dama jox daal en tout cas utilisateur bi euh, le choix en tout cas mu mu customiser application bi comme nu mu ko neexee voilà donc waxtu salaat daal mi ngi noonu c'est une application boo xam ne daf lay permettre nga am heure de prière yi avec euh, benn customisation boo si. macha allah alors je pense que euh, am na solo trop man bi ma ko installé ba léegi à chaque fois bu heure de prière yi jotee da bi loolu moo gën a euh, mhm. ak loo mën ti def ci écran bi di ko gis quoi di nga xam ne heure julli bi jot na voilà nga dem préparer ci ko alors je pense que c'est c'est hyper important mais naka nga def ba am xalaatu defar ko da nga jékki rek am xalaat bi wala wala naka waaw alors xam nga sànq rek yaa yang yaa ngi koy wax. Mhm. mooy quand tu es si sa machine en mhm. fait. Mhm. yenn saa yi euh, yàlla nañu borom bi jégal mais yenn saa yi euh, heure bi exactement heure prière bi comme loolu daf may dal maanaam principalement tout ce qui euh, tisbaar ak takkusaan heure bi su jotee. dinaa si teg quelque benn trente minutes wala benn quarante cinq minutes pour xam ne ah heure heure tisbaar jot na wala heure tàkkusaan jot na war naa dem julli ji parce que da ngay concentré wu tellement si liggéey bi ba euh, yenn saa yi da ngay da fàtte quoi donc euh, yenn saa yi pour pour bañ a fàtte généralement nit ñi nu ñuy def mooy euh, télécharger yenn application yi seen téléphone yi mhm. n'est-ce pas mhm. heure bi su jotee téléphone bi notifié la quoi comme quoi que heure julli bi jot na n'est-ce pas mais man man en fait le truc mooy ni ma xalaatee waxtu salaat mooy euh, man su may liggéey en fait damay écarter tout ce qui est distraction ouais. ok mm-hmm. maanaam -hmm. tout ce qui est mon téléphone et cetera loolu yëpp dama koy écarter euh, dama koy def si beneen pièce wala su ma ko deful sam si beneen pièce damay tourner écran et par défaut damay désactiver toutes les notifications euh, si sama téléphone man sama téléphone doo am benn notification parce que notification yi mooy indi benn distraction en fait. Mhm. que quand tu reçois benn notification. daf lay inciter mooy li ñuy woowee le hook daf lay inciter nga ubbi notification bi commencer di interagir ak euh, application te loolu noonu daf lay daf lay désorienter daf lay. Euh, euh, daf lay xaw a déranger tuuti donc euh, yi dama koy désactiver donc tey ji waxtu julli mën na jot te duma ma ko xam bu fekkee ne du ma jot notification sama téléphone nest pas si voilà donc idée bi foofu la jóge dama ne comme que man je suis un professionnel et quatre-vingt-dix pour cent de mon temps euh, peut-être si machine bi laay toog ok sama liggéey bi yëpp si machine la du si téléphone donc dama ne ok damay déjà dem xooli si store bi benn application boo xam ne voilà pour euh, pour annoncer heure de prière yi la. ok n'est-ce pas. ok voilà donc euh, si noonee la dugg si euh, App Store bi donc muy magasin wu Apple en tout cas boo xam ne da fay fekk ay ay application donc si laa si duggee di xool benn application boo xam ne tey jii dina ma permettre. di may notifier kii heure de prière yi directement sama mag. ok mais bon. amoon na ay application yu existé mais pas comme man ni ma ko bëggee woon en fait pourquoi pas man ni ma ko bëggee woon parce que man en fait je prête beaucoup attention au au design au visuel man je suis une personne comme ni ma sa waxee si njëlbeen bi euh, graphic designer laa woon donc euh, du UI design UX design j'en fais donc euh, voilà euh, loolu daf ma intéressé woon en fait ok euh, design aspect design bi en tout cas daf ma intéressé woon je voulais quelque chose de simple épuré boo xam ne ça fait le taf malheureusement samay recherche joxuma dara euh, donc euh, application yi ma doon gis yëpp ce sont des applications yoo xam ne biñ ko defaree yàgg na ah, donc UI bi c'était pas interface graphique bi en tout cas c'était pas tellement sax ok ma bon du moment où euh, seet naa gisuma li ma bëgg. comme tout euh, qui se respecte soo seetee benn affaire amul mais tu développes ta solution donc euh, waxtu salade si la jógee donc je me suis dit que je vais développer ma propre application c'est simple c'est mhm. épuré mhm. comme je le voudrais mhm. ma développer ko après euh, je lance sur le store parce que euh, c'était voilà pour man kese la woon. quoi tu vois non mais euh, mais mais révolution yi affaire innovation yu mag yëpp ñu foofu lay jógee ah da ngay bëgg defar benn affaire pour régler sa problème far après di tu te tu te rends compte que ni problème bi nga am nii mooy problème mu ñëpp ah après affaire bi noonu lay jaaree day exploser quoi ça c'est voilà voilà donc euh, ma commencé ubbi sketch euh, ma commencé def yenn maquette yi. ok mhm. xamoon naa ne ça serait un status bar euh, app maanaam benn application boo xam ne ci sa status bar lay nekk tout le temps ngay xool heure de prière bi par exemple là maa ngi gis ne tisbar c'est c'est dans une heure cinquante minutes. donc genre feedback boobu noonu c'est c'est assez intéressant parce que ça te prépare mentalement en fait c'est dans une heure cinquante danga nga war a jug tu vois un peu voilà donc mu design application bi design ni mu war a mel et cetera et puis euh, j'ai commencé bon première image yi sax mën nañ ko gis sur Twitter. Ouais, si, j'avais préparé j'avais partagé la première image sur Twitter mu recevoir bag yu bëri macha allah de la communauté ma xam ne li nii lu nit ñi bëgg la loo xam ne dina mën a intéresser nit ñi parce que j'avais reçu des feedbacks comme quoi que nit ñi dañ ko bëggoon quoi te loolu je l'avais partagé si weeru koor bi Euh, donc euh, voilà ma xam ne lii ni ça pourrait intéresser les gens après nag mu continuer ko di koy peaufiner côté design ok design bi bi mu pare mu commencer implémentation bi avec le code et cetera okay. voilà et comme ça bi mu pare ma lancer ko ci App Store bi et macha allah ça a été beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup téléchargé beaucoup utilisé mu recevoir ci ay ay feedback yu bëri. bëri bëri bëri macha allah. Euh, xalaatuma woon ne dina dina. dina yegg fi quoi euh, voilà dina yegg. dina dinañ si ñëw léegi sax dinañ si ñëw si si si euh, ni mu amee ampleur après bi nga ko installé bi nga ko dugalee App Store pare mais mais mais au fait j'aimerais aussi xam aussi e-, exactement man application bi installé naa ko mais comme ni ko wolof di waxee tungu du teew ñu ne daal alors yan fonctionnalité ñoo gën a mag ci biir application waxtu salaat nga mën ñu ko wax je pense que joroon nga ci wax tuuti sax mais est-ce que mën nga ci fonctionnalité phare yi nga ñoo nekk ci application bi rapidement. Mhm, effectivement donc fonctionnalité phare yi mooy euh, déjà dafay wan heure de prière yi. Mhm. maanaam les euh, cinq prières quotidiennes. Mhm. fajar tisbaar takkusaan timis et puis daf lay wax tout le temps daf lay wan tout le temps euh, prochaine heure de prière bi kañ la maanaam julli nañ fajar instant yi il fait onze heures vingt cinq daf lay wax tisbaar kañ la exactement n'est-ce pas. Euh, par exemple là il me dit que Tisbar c'est dans une heure quarante-huit minutes euh, bu weesoo loolu am nga une vue globale sur euh, heure de prière u weer bi yëpp. donc euh, soo ubbee application bi am na benn icône calendrier quand tu cliques sur l'icône calendrier daf lay won heure de prière u kii bi yëpp donc kooku tamit ça fait partie des fonctionnalités phares euh, l'autre fonctionnalité phare aussi mooy notification yooyu noonu ñu donc euh, heure de prière bi su jotee euh, suivant ni nga configurer notification bi noonu nga koy amee. par exemple euh, man j'aime bien si yenn heure de prière yi surtout timis par exemple timis ak fajar bi sama notification bi mooy nodd bi. Ah, nodd bi ak notification. yoo mm-hmm. bañ tout temps tout temps ñaari waxtu yooy noonu notification yooyu laay def bu weesoo lool yeneen notification yi par exemple mën naa décider notification bannière donc ça te permet de en somme de choisir type notification bi nga bëgg par rapport ak euh, heure de prière yi ça te permet aussi comme ni ma ko waxee woon sànq nga customiser pour heure de prière bi si boppam. ok d'accord okay. donc euh, on n'est pas obligé d'utiliser euh, voilà fajar zuhr asr maghrib isha donc euh, bu si nekk mën nga ko customiser ok euh, jox ko sa tour bu la neex. comme ça euh, moom ngay gis ci mhm. ci barre de euh, barre de navigation bi barre de menu pense que fonctionnalité yi nga ni yëpp na solo et euh, je pense que maa ngi ñaax nit ñi nag ñu télécharger ko soxla bi mu ci App Store bi tu vois donc mun nga ko xool tu vois c'est disponible actuellement que sur Mac tu vois xam naa Ibrahima après mhm. dina travailler ci application iOS bi mais pour le moment Mac bi man sa ça m'arrange très bien parce ci lay liggéey tu vois et à chaque fois da lay jox notification yi euh, yenn saa yi sax mu def nodd bu neex tu vois euh, et ja hyper intéressant pour euh, fajar bi ak timis bi fekk doo nekk bureau tu vois nga xamante ni du déranger kenn aussi quoi alors je pense que c'est très bien réfléchi ak ni nga customiser affaire bi de telle sorte que utilisateur bi day mën a xool li ko arranger moom mu def loolu quoi tu vois parce que su fekkoon ne à chaque fois bu choisir ci vois ça serait problématique parce que mën nga toog bureau muy nodd tu vois ça serait mën a déranger ñenn ñi et je pense que euh, effectivement loolu am na solo trop trop alors Ibrahima euh, tey jii application waxtu salaat bokk na ci application yi gën a fës ci App Store euh, ci catégorie bi ñu naan ay utilities xaw ma alors Ibrahima lu loolu lan lay tekki exactement ci application yi gën fës ci catégorie utilities ak ban njëriñ la mën a am ci application bi mais tamit yow mi nga xamante ni yaa ko defar est-ce que yaa ngi xalaat aussi euh, yokk ci yeneen service yoo xamante ni euh, dina la mën a permettre sax nga générer ay ressources wala yu demee pourquoi pas alors est-ce que yaa ngi xalaat ci loolu aussi quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw euh, kooku question bu bu am solo la. alors oui parce que waxtu salaat bi mu amee juste quelques heures ah. le retrouver aussi si top top numéro un en tout cas si charte yi maanaam si catégorie bi mu nekkoon. et quelques heures après mu nekk euh, la première application gratuite pure euh, purement donc kooku moom déjà c'est une fierté euh, une fierté du ma ne yaakaaruma yegg foofu noonu parce que jombul kenn aussi euh, il y a plein de développeurs yoo xam ne ils le font tout le temps donc euh, je savais que c'est c'était possible lu mënoon nekk la mais déjà c'est c'est une reconnaissance n'est-ce pas c'est une reconnaissance parce que euh, daf lay encourager en fait à toujours aller de l'avant man pour man sa vraiment signification bu xaw a mhm. euh, bu xaw a diis tuuti parce que dafay encourager ça te ça te permet de te remettre en question nga yóbbu affaire bi toujours foo xam ne yaakaaroo ko woon sax yow tu vois parce que tey jii cela veut dire que mhm. nit ñi mhm. ñu saa comme ça def tey application bi sur le store tu te retrouves en en en number one non non loolu cela veut dire que derrière des centaines et des centaines de personnes ont pu télécharger l'application ouais. Ouais. n'est-ce pas mm donc euh, et, et a été le cas en fait euh, avec Waxtu Salade donc dama ko mettre sur le store j'ai fait euh, j'ai euh, j'en ai parlé sur euh, Twitter sur réseaux sociaux Euh, principalement Twitter ak LinkedIn déjà recevoir c'est ay ay retours yu bëree bëri retour yu positifs yu bëree bëri bëri bëri les gens sont allés euh, installer l'application euh, def si ay screenshot wan ma ko tu vois euh, euh, ñu ñëw ak ay feedback et cetera donc yooyu noonu yëpp nombre de téléchargement bi tey jii mooy tax que tu te retrouves en en pole position nekk numéro un si si store bi. Okay. donc euh, voilà loolu daal lay lay lay jëriñ. Euh, maintenant bu fekkoon ne par exemple man nu may bénéficier woo si loolu tey jii avec waxtu salaat je n'en bénéficie pas trop vraiment pour être honnête. Okay. Euh, tey jii euh, peut-être visibilité lay may application bi ah pour que. vraiment sama sama sama mbokku musulman yi mën ko télécharger mën si bénéficier wu n'est-ce pas mais par exemple application bi bu fekkoon ne c'était une application payante là loolu noonu daf lay permettre tey jii nii que beaucoup de personnes en fait téléchargent cette application après yow développeur bi nga mën see am revenu okay. mais encore une fois Waxtu Salaat c'est une application complètement gratuite n'est-ce pas euh, côté revenu wax dëgg fa neex yàlla xaaruma si absolument rien n'est-ce pas euh, dama ko def pour euh, pour tous mes euh, frères musulmans. voilà pour que ñu mun si bénéficier voilà mais xaaruma si dara tey jii reconnaissance bu may jox c'est que c'est de devoir aider en tout cas un un frère musulman tey jii muy liggéey. waxtu julli jot application bi notifié ko ne waxtu julli jot na. Mm. mu bàyyi lu muy def jug dem julli ji. macha allah voilà loolu daal c'est c'est ma plus grande satisfaction aujourd'hui mooy euh, développer application bi. Mm. nit ñi mën si bénéficier wu mën a bàyyi li ñuy def dem euh, alors je pense que loolu c'est euh, c'est très noble tu vois et am na solo trop je pense que bu ñëpp doon xalaatee noonu aussi dina dina baax trop parce que nekkul na à chaque lépp lu ñuy def a am xaalis dañ a séntu xaalis xaalis baax na trop tu vois ci li ñuy liggéey mais yenn saa yi aussi fokk ñu def loo xamante ni day jëriñ nit ñi aussi quoi et je pense que même euh, damay faral di wax ne euh, nit booy def loo xamante ni nit ñi dañ ko soxla rek mën na am am am bi mën na ñëw ci kanam après quoi tu vois mais mmh looy def aussi di ci séntu tey xaalis mun nga ci sonn te doo ci am xaalis tu vois mais fexeel rek nga def loo xamante ni nit ñi soxla nañ ko parce que nit ñooñu tey ñoo la mën a yóbbu foo xamante ni fu sori lay doon euh, foo xamante ni mën na sax weesu sa njot je pense que partage bi am na solo bu la yàlla mayee xam-xam euh, am na ñu bari ñoo xamante ni euh, mayu leen ko. yow la ko jël mu jagleel la ko donc aussi war nga mën a delloo njukkal aussi euh, xam-xam boobu nga partagé ko def loo xamante ni day jëriñ nit ñi parce que à chaque fois tamit nit ñi dañuy fexe rek naan lan la mën nit mën a defar lan laa mën a jëfandikoo lan laa mën a jëf mais pour sa population pour sa communauté exactement et je pense que tey jii affaire bu noble nga def nii man maa ngi ci remercier bu baax a baax personnellement parce que ça m'aide beaucoup ñëpp aussi ñu koy installé euh, mu ngi leen di bu baax a baax pour que ñu mun a euh, kii te xam naa ne dinaa gis ñoo xam ne dinañ dem ci mag uniquement pour am affaire boobu quoi. <laughs> incha allah incha <laughs> léegi Ibrahima dañuy dugg ci benn volet bu am solo mu nekk tuuti wax tuuti ci affaire technique bi parce que bëggoon naa xam exactement euh, ci yan jéego maanaam ci yan étape. ak yan jumtukaay nga jëfandikoo ba defar application waxtu salaat. parce que tey jii je pense que ñu ngi ci version un point treize. oui voilà mhm. wax ñu aussi ci version yi naka nga koy defee. ci mbirum version yi d'accord très bien alors déjà euh, tey jii man euh, je porte plusieurs casquettes en fait. quand je dis je porte plusieurs casquettes mooy euh, je porte principalement deux casquettes. dama am benn casquette designer benn casquette euh, de. développeur mmh. ou mm-hmm. ingénieur ok, okay. okay. Euh, parce que bu si nekk casquette bu si nekk en fait euh, am na ñoo xam ne ils sont spécialisés soit dans le design mmh. soit dans le dans l'ingénierie ou dans le développement mais man j'ai eu quand même la chance de côtoyer les deux mondes ok, okay? donc tey jii euh, pour toutes mes applications bépp idée bu ma am euh, première phase bi mooy euh, ideation li ñuy naan ideation mooy tu as déjà cette euh, cette idée mooy déjà da ngay am idée de développer quelque chose okay. n'est-ce pas idée bi soo amee après euh, la prochaine étape mooy xool l'existant mooy euh, de faire la recherche ok mhm. maanaam nga gëstu par rapport ak sa idée si ça a déjà été développé euh, wala euh, voilà, si ça existe déjà bu fekkee ne ça existe est-ce que loolu noonu existe ndax Euh, dina répondre à ses à yow say besoins. wala okay. euh, noo mën a améliorer li exister ba pare parce que man Euh, bi ma amee idée bi ba def samay recherche je savais que li ma bëgg a def existé na ba pare. mais que ça solution bi amoon en fait ça ne m'a pas plu neexuma woon trop n'est-ce pas. parce que comme ni ma la koy waxee man je porte une attention particulière sur tout ce qui est esthétique sur tout ce qui est design. Okay. n'est-ce pas donc euh, soo defee euh, idéation bi def say recherche ba pare xam ne par exemple li nga bëgg a def existé wul. wala existé na mais mën nga ko améliorer si bii ak bii anam. léegi nag nga commencé maintenant sa sa design. ok nga commencé di def euh, ubbi par exemple soo mënul design par exemple mën nga waxtaan idée bi ak euh, quelqu'un qui s'y connaît un un un designer un UI wala UX designer. nga soumettre ko sa idée. Mm. ah won ko vision bi tuuti. Euh, wax ko trajectoire bi moom mu mën na jël yooyu noonu éléments yi nga ko jox yëpp. mu transformé ko en UI en ce qu'on appelle du UI maanaam en, une version graphique n'est-ce pas ah, mhm. ok mhm. maintenant yow bu fekkee ne développeur nga euh, ça dépend par exemple mën nga nekk designer mën nga xalaat benn affaire amul nga bëgg ko créer nga nga def design bi donc yow foofu ngay mën a yem maintenant soo defee design bi ba pare il faut que design boobu noonu développeur réalise ça n'est-ce pas mooy partie yi bi. Mm-hmm. d'accord mm-hmm. donc bu fekkee ne sax xam-xam màcc na surtout tout ki qui est ingénierie wala développement tu peux le faire toi donc euh, pour waxtu salaat noonu laa def donc euh, dama def design bi ba pare bi ma paree ba bi ma noppee si design bi ba ba am tout ce qui est euh, graphique n'est-ce pas ma continuer ci développement bi donc ma jël design boobu noonu transformer ko en code code boobu noonu tey jii moo ma servir ma am. application bi après nag soo amee application bi ba testé ko ba lépp baax après nag nga soog koo yónnee Apple pour Apple testé application bi aussi parce que avant que muy nekk si store bi da koy envoyé Apple. si bien sûr. Apple mhm. teste ko. Mhm. donc day jaar Apple ñoom ñu testé ko. ok et benn petite anecdote bu ndaw. Mhm. Euh, application bi man ko bëggoon application bi mu ngi génn un vendredi. Ah. li tax euh, mu nekkoon vendredi suñu borom rek a xam. mais lundi bi laa ko bëggoon publier. ok lundi bi laa ko publier. mais ni mu mooy dama ko envoyé à Apple le dimanche. ok yaakaaroon mais bon seen feedback dina gaaw quoi donc en moins d'une journée dinañ ma def euh, dinañ ma revenir avec un feedback positif mu mën ko lancer le lundi donc je l'avais lancé je l'avais envoyé à Apple le dimanche mais ce qui s'est passé mooy. j'ai reçu effectivement un feedback le lundi, mais un feedback négatif. Donc, Apple, ils me sont revenus, mhm. ne ma li moo manqué ces applications bi par exemple euh, localisation bi fi ngay laajee utilisateur localisation bi da si war a yokk benn texte descriptif pourquoi nga soxla localisation mmh, donc Apple da ngay def ay ping-pong comme ça tu parce que ñoom seen système c'est bien pensé seen application c'est bien pensé ba da ngay suivre yenn guidelines yenn guide yenn rules yenn règles yooyu yoo war a suivre ok pour application bi mën a nekk ci store donc de de de dimanche ba jeudi man ak ñoom ñu ngi ping pong en fait <laughs> luñ wax. luñ ma nga corriger quoi voilà am na benn affaire bu mhm. corriger lii ok man ma def ko corriger ko. envoyé waat leen donc ñuy ping pong donc de dimanche à jeudi jeudi soir la mujjee Euh, approbation bi comme quoi que léegi lépp baax na mën nga donc il était jeudi soir ma ne ok il est jeudi soir maintenant guddi àjjuma je vais attendre le vendredi incha allah euh, qui est un jour très symbolique pour nous les musulmans de lancer application. voilà donc noonu la demee. mais le mot euh, application toj après quoi. waaw xam na xam naa loolu vendredi bi la quoi. <laughs> voilà vendredi bi barke àjjuma donc pour revenir à ta question donc euh, processus bi c'est euh, ideation maanaam tu as l'idée après tu fais des soo paree si recherche yi nga nga jàll si phase de design bi soo jàlle si phase de design bi nga jàll si phase de développement bi soo jàllee si phase de développement bi jàll si phase de déploiement bi voilà donc euh, cinq kii yooyu noonu la cinq process yooyu la idée design development and uh, the deployment. non am na solo bu baax baax je pense que étape yu noonu euh, baax na trop nit ñi xam ko euh, et je pense que soo leen bëggee approfondir nag mun ngeen jege Ibrahima wala ngeen dem ci internet bi wala nga dem ci bibliothèque yi pour mën a approfondir seen connaissance mais c'est bien nga xam euh, ñu xam exactement étape yooyu nga xamante ni moom la ñuy jaar pour réaliser application yi daw ci Mac OS même sax ci iOS iPhone yi ak yu demee noonu alors juste ma wax ne nag suñu ma fàttali encore que ne euh, épisode tay bii nii yóbbaale ma moo ko sponsorisé yóbbaale ma nekk benn application de covoiturage euh, foo bëgg dem ci Sénégal mën nga dugg ci application bi def sa recherche recherche gis ay oto yoo xamante ni mën nañ la yóbbaale ci njëg bu yomb alors borom oto bi tamit euh, mbir mi mën na baax ci moom trop parce que dina ko permettre mu bañ a dem ci vide noonu rek ak oto moom kenn kese dina ci mën a gagner aussi quelques weccet bu sew ay tuuti xaalis a compléter mois ni des trop tu vois alors ci Sénégal bi nga xamante ni vie bi mu ngi gën a cher alors ku bëgg am ay plus d'information ci application yu bale mi boobu nag mën nga xool ci description podcast bi dinañ ko fa jox yëpp je pense que yoon la encore une fois maa ngi koy wax ñu utiliser application yi nga xamante ni ñu ngi koy defaree fii ci Sénégal tu vois euh, et je pense que loolu war na mën a dimbale suñu start bi ba nga xamante ni dañ leen dégg fu sori sori sori sori encore une fois maa leen wax encore application waxtu salaat aussi bu leen ko fàtte télécharger parce que c'est hyper important d'accord. alors euh, par rapport à la à la à la version. su mm-hmm. ñu xoolee actuellement wax. tout ça, mi ngi si version euh, un point zéro point euh, point deux. avec euh, entre parenthèses treize. bon Exactement. on va parler de de tout ça. Mm -hmm. euh, alors version un point zéro point deux en fait dama dama sur ce qu'on appelle euh, en programmation le semantic versioning. semantic versioning mooy. Mhm. da ngay am benn numéro boo xam ne c'est composé de trois chiffres. ok par exemple dans mon cas un point zéro point deux. un bi mooy la version majeure ok c'est-à-dire un bi c'est c'est une version majeure euh, zéro bi c'est une version mineure par exemple tey jii su ma développé woon beneen fonctionnalité mais c'est pas trop une version majeure donc damay incrémenter zéro bi donc mu doon un point un par exemple point zéro par exemple ok, okay, okay. et deux bi deux bi ma mujjee am mooy un dans le un point zéro point deux deux bi mooy euh, un un fixe wala un patch ok par exemple ma am benn bëgg ma fixe bëgg bi et cetera donc kooku noonu c'est pas c'est pas une version mineure c'est juste un, un fixe de bug wala un patch okay. donc foofu noonu da ngay incrémenter en fait euh, le chiffre boobu noonu c'est-à-dire le dernier donc moo tax entre un point zéro point zéro bi et un point zéro point deux cela veut dire qu'il y a eu mhm. deux mm en fait deux bugs fixes ok yoo xam ne jot naa ko envoyé ci App Store maintenant entre parenthèses treize boobu noonu mooy le nombre de builds que j'ai soumis à Apple. Ah. donc depuis la version depuis la version un point zéro point zéro euh, build one j'ai soumis exactement treize builds à Apple pour que ñu vérifier ko. donc euh, am application ni sur le store euh, <laughs> on peut voir l'application comme ça mais derrière. il y a beaucoup de choses en fait yoo xam ne day euh, ça se passe euh, derrière quoi. Ouais, ouais. Moi, voilà mooy ñu expliquer sànq il faut que Apple ñoom ñuy vérifier affaire bi bu amee. a problème wax nga ñëw defaraat après euh, yónnee war leen ko quoi. ah c'est hyper intéressant man je savais pas affaire bi ni muy doxee noonu parce que gis naa mais xaw ma naka lay doxee sax quoi mais c'est bien. exactement bon après peut-être je vais t'envoyer le lien. pour du semantic versioning. c'est quelque chose qui ma ko. ci note incha allah envoyé ma ko comme ça dinaa ko rattaché ci note allah macha allah. incha mhm. bon Ibrahima am na tamit. Mhm. beneen mbir boo xamante ni bëggoon naa euh, ñu waxtaan ci maanaam App mhm. Store ak waa Apple. bu yàgg euh, ba léegi entreprise ak yu bëri euh, ñoo ngi yi nga xamante développeur yi nga xamante ñoom ñooy application di ko dugal ci app store bi dañuy kaas rek am na ñu ngi kaas lu bëri bëri bëri maanaam dañuy wax ne Apple ci boppam jaaralewul yoon li nga xamante ni noonu la ñuy defee njënd mi ak njaay mi ci biir euh, ci biir app store bi maanaam euh, maanaam maanaam daal bu ñu ko mënee bu ñu ko mënee wax mooy ni ñuy jëfandikoo ni ñuy jëfa ni ñuy jëflante ak ñi nga xamante ni ñuy defar application yi baaxul dara ko seen diggante rek taxul noonu am nay problème mhm. alors yan mhm. leeral nga ñu mën a indil ci euh, problème boobu noonu ak aussi fii ci Afrique wala sax Sénégal est-ce que situation boobu noonu am na ay jeexital ci ñun parce que le plus souvent mhm. dañuy li ñuy gën a dégg mooy ay Epic ak genre demee mooy gars defar Fortnite ak mhm. mais est-ce que am na mhm. ay jeexital aussi fii ci Afrique ak lan nga ñu mën a wax ci loolu yëpp bien sûr alors euh, effectivement comme comme ni nga ko waxee euh, Apple euh, du xaritu développeurs yi bu baax ah. <laughs> muy Apple di Google d'ailleurs euh, on a tendance à cibler à cibler Apple mais du Apple kese okay. Apple ak Google aussi ouais. parce que il faut savoir que depuis euh, depuis création store bi loolu dañ koy remarquer ci application payante yi alors soo defaree sa application payante Euh, nga dugal ko si euh, si App Store bi parce que aujourd'hui euh, amul beneen moyen bon pourquoi ñuy cibler Apple principalement c'est que aujourd'hui amul beneen moyen boo xam ne nit ki mën na télécharger une application surtout sur son iPhone. bu jógewul si App Store. il pas. Mhm. ok surtout une application payante. donc nit ki tey jii pour mu am pour mu installer une application sur son téléphone il faut que mu dem si App Store bi. ok e App Store bi euh, tey jii euh, supposons que ma defar benn application boo xam ne c'est payant ok ma koy facturer par exemple je sais pas moi à dix dollars ou euh, dix euros et cetera. alors avant Apple daf si doon jël une commission ce qui est parfaitement normal parce que ñoom ñoo lay defaral publicité bi ñoo lay defaral marketing bi et cetera et cetera et cetera mais Apple commission bi ñu si doon jël dafa ëpp c'est c'était une commission de de de trente pour cent d'accord. donc tey jii soo jaayee benn benn application euh, qui coûte euh, dix dollars ñoom dañ siy jël trois dollars n'est-ce pas. Euh, bàyyi la ak sa dollars yi. donc tey jii lool dafa dafa dafa xaw a bëri pour surtout des développeurs indépendants. donc si noonee la yenn entreprise comme Epic Games commencé ko commencé dévier un peu la parce que yooyu tamit dañ ko def si si si seen guidelines. ñoom ils ont ce qu'ils ce qu'ils appellent des euh, consumables and des non consumables quand tu as un consumable c'est-à-dire mooy euh, tu veux acheter quelque chose euh, directement à partir de ton application supposons kaw Epic Games ok, mhm. euh, bi bi juróon coow bi kaw Epic Games mooy si biir bi tu vas acheter des choses n'est-ce pas si biir jeu maintenant Apple daf lay wax ne bu fekkee ne da nga am benn application boo xam ne da ngay jaay ay des trucs virtuels il faut que nga utiliser ñoom seen API pour que ñoom ñu mën si am seen commission. Hmm, n'est-ce pas. ok que ñoom ñu mën see dagg seen trente pour cent. ok alors loolu ça fait partie des guidelines donc tey jii bu fekkee ne tu réalises une application euh, payante soo koy jaay tu dois passer par API wu Apple. par euh, par euh, par Apple directement pour que ñoom ñu mën si jël ñu mën si tirer seen trente pour cent de commission ok loolu ça fait partie des guidelines léegi Epic ne non trente pour cent yi dafa bëri donc man damay développé sama propre chaîne pour permettre samay utilisateurs ñu jënd euh, yi may jaay si sama jeu mm-hmm. n'est-ce pas donc suñu defee loolu cela veut dire que Apple dootul amati ci commission bi <laughs> n'est-ce pas dootul amati trente pour cent de commission ah ah ok ah donc Apple les a envoyé une lettre wax leen ko ne leen bon on a remarqué que seen application mi ngi suñu store vous vendez des choses virtuelles mais vous ne passez pas par notre in-app donc da ngeen utiliser seen propre canal n'est-ce pas donc euh, mu ne leen lii soo leen ko bàyyiwul dañuy jël Euh, seen application ñu supprimer ko carrément suñu store parce que ñoom ñoo moom store aussi n'est-ce pas ouais, ça c'est sûr voilà lu leen neex lañ siy def ah donc euh, et puis ils ont dit non on va toujours passer par notre propre canal Apple ne leen comme que da ngeen di insister à partir de telle date on va remove on va supprimer dindi carrément seen. Euh, wow. seen application de notre corps. donc noonu la demee looloo jur coow li effectivement mm-hmm. léegi nag bu ñu dindee application bi si store bi. Mm-hmm. et puis porter plainte. Ah parce que aux États-Unis quand on te fait une chose ça ne te plaît pas tu peux porter plainte. et puis yóbbu Apple euh, devant la cour. donc euh, voilà euh, ñu commencé si def procès et cetera et cetera ñu def ñu daan Apple si si loolu. parce que waroo mën a am benn monopole rek ne lii yaa moom lu la neex nga siy def. donc euh, Apple déjà on lui a déjà dit de baisser ses tarifs commission bi moom ak euh, Google ah d'ailleurs donc euh, à la suite de ça euh, commission bi nekkoon. trente pour cent maintenant quinze pour cent la. Ah, ce qui est, est ce qui est top. Mhm. ok wàññi nañ ko. Mhm. trente pour cent la et puis aussi euh, utilisateurs yi développeurs yi plutôt. ils ont maintenant le choix. Bon, ça c'est c'est quelque chose euh, qui va être installé dans les dans les prochains mois. euh, d'ici l'année prochaine. Maintenant, un développeur a la possibilité de ne pas utiliser directement Apple wala euh, Play Store mm -hmm. pour def monétisation mën na utiliser par exemple beneen service okay. comme par exemple Stripe ok, okay? Stripe bu ñu xam ci tout ce qui est paiement wala yeneen service de paiement i yoo xam ne tey jii ils vont entrer en concurrence avec Apple mais ça sera une concurrence saine par exemple fu Apple di jëlee peut-être commission cinq euh, quinze pour cent ñoom peut-être dinañ jël benn commission dix pour cent wala benn commission pour cent. tu vois donc yooyu noonu. Oh. Euh, c'est c'est des choses qu'on verra peut-être dans les dans les prochains mois. Mm -hmm. mais maintenant Apple wala Play euh, wala Google kese amatuñu. Mhm. monopole euh, souscription ci ci mais je pense que loolu xam ko am na solo trop surtout jamono ji tu vois nga xamante ni déggoon nañ fi problème yu bari tu vois Apple ak seen problème yi ñu et tout ça Fortnite mais euh, je pense que tey yoon la ñu xam euh, fan la ci toll tey comme ni nga ko expliqué nii tu vois que léegi ba bàyyi nañ tarif bi ba 15 pour cent ak yeneen nouveautés yi nga xamante ni war na ñëw ci euh, weer yi di ñëw et je pense que loolu am na solo bu baax baax développeurs xam ko et voilà man mii je pas et c'est hyper ñu xam ko bon Ibrahima Ibrahima léegi nag pratiquement épisode bi mu ngi waaj a jeex mais dis-moi ku bëgg am application bi nga xamante ni moom nga defar dañuy ñëwaat ci application waxtu salaat bi cest à ku bëgg am application bi nga xam ne ci euh, naka la war a def euh, je pense que wax nga ko léegi sax cest à ci ordinateur yi kese la mën a daw fi mu toll nii mënagul daw ci téléphone yi et mm-hmm. pour télécharger ko da ngay ñëw ci app store bi pas euh, bu nga xamante ni moo nekk ci sa ordinateur mag nga rechercher waxtu salaat maanaam euh, voilà allez mun naa la bàyyi sax nga wax exactement na la ñu def pour télécharger ko direct. waaw c' est c' est principalement euh, dinaa la envoyer lien lien bi si euh, si App Store bi. comme ça tu vas l' ajouter à wala soo duggee si store bi rek application bi par exemple dama si yokk ay mots clés. soo tapee salade rek wala waxtu wala prayer wala muslim wala et cetera yooyu yëpp ay ay mots la soo ko tapee. taper di nga di nga am waxtu salade bon pour être plus accurate en tout cas il faut taper waxtu salade W A T U espace salade S A L ok et euh, premier résultat bi di nga si gis euh, waxtu salaat incha allah mais encore une fois dinaa bàyyi lien bi aussi euh, si euh, si hmm. description yi nga xamante ni ku bëgg télécharger mu nga ko cliquer directement di nga gis mu dina ñëw quoi incha allah mais waxuma nga nekk sa téléphone di déglu podcast bi bëgg ko installer sa téléphone non da ngay nekk <laughs> c'est <laughs> sa mag di déglu après mun nga cliquer nga mu yóbbu la nga installer n'est-ce pas alors mm-hmm. Ibrahima Euh, xam naa ni sax euh, ni euh, parego ak ñun ci surprise yi nga xamante ni yaa ngi koy waaj a def. avec mhm. l'application iOS yi. mais est-ce que. mën mhm. nga ñu wax mhm. lan la ñuy xaaraat yu bees ak yow ci yeneen application yu bees waaw waxuma nag ñu spoiler wala genre mais est que am na initiative yoo xamante ni yaa ngi ko indi quoi après. waaw mais mais mais bien sûr man sa ça c'est ma c'est ma life hein. c'est tey jii principalement je fais de la consultance moitié de mon temps pour générer quand même des, des, des revenus. Mais l'autre moitié de mon temps, c'est de développer euh, AI applications comme Wartu Salad et d'autres qui vont venir. Bon, la prochaine, en tout cas, ça, ça s'appelle Fateliku. Comme nous m'avons dit, man euh, je donne cette identité mon identité à ces applications que je développe fàttaliku mm -hmm. sera une application maintenant qui sera disponible quand même sur euh, iPhone iPad et, euh, et Mac benn application la boo xam ne daf lay permettre euh, nga nga nga nga def ci say souvenir euh, par exemple euh, voilà la dernière fois que tu as ta ta batterie de la souris, par exemple, la batterie de ta souris, okay. la dernière fois que tu as fait ci, que tu as fait cela. Voilà la dernière fois que tu as par exemple, euh, des moments, des quality time avec tes enfants, etc. yooyu yëpp euh, mën nga koy si def nga documenter ko et euh, mu la koy won dans si benn ordre chronologique. Mhm. parce que man daf may dal tout le temps. damay faral di la dernière. dernière fois bi ma defee ceci la dernière fois bi ma defee cela tu euh, et application bi daf lay permettre maintenant ngay renseigner yooy avec la possibilité de mettre des photos de mettre des tags de mettre des notes et cetera et cetera et après bon après boobu noonu bëgguma si sori mais il y a des applications yoo xam ne ça sera dédié exclusivement pour le Sénégal okay. parce que fàttaliku ça sera une, une application worldwide okay. mais il y a quand même am na ay pipe d'application yoo xam ne ça sera exclusivement dédié pour euh, mhm. pour les Sénégalais dans un premier temps et okay. après peut-être pour la sous-région et cetera parce okay. que comme je l'ai dit, moi, je mets euh, en évidence cette partie communauté-là qui est très ouais. importante. Ouais, ouais. Alors, je pense que loolu moom ñoo ko ñoo ko niroole c'est-à-dire euh, on s'intéresse beaucoup ci Sénégal tu vois parce que je pense mm. que il faut bien s'enraciner balaa ngay ubbeekuwaat ci ñeneen tu vois. Euh, et je ça. me dis que ne tey jii nii ñeneen ñi am nañ am nañ wéruwaay am nañ lu bëri luñ mën a xam tu vois euh, boo demee ci Europe États-Unis et tout ça gars yi jàng nañ ci jàngul bëriwul peut-être mën nañ ubbi livre yi liiral seen bopp xam am xam-xam yu bëri mais ñun fii. Euh, taux d'analphabétisation bëri na trop tu vois euh, ñi nga xamante ni am na yu bëri yoo xam ne mënuñu am accès pour ci xam-xam yooyu pour xam ko bëri na tu vois donc du coup je pense que yoon la ñun aussi ñu leen di delloo affaire bi nga xamante ni mooy euh, li ñu xam li nga xamante ni euh, chance lañ am pour mun ko jot parce que am na suñu morom yu bëri yoo xamante ni amuñ chance boobu pour am xam-xam boobu donc soo demee ba am xam-xam boobu yoon la nga mën a delloowaat ko population bi nga xamante ni ñoom ñu ngi fi te voilà te te amuñ possibilité boobu noonu quoi dem uti xam-xam yooyu parce que nit ñi muus nañ am nañ xalaat mais il faut que rek ñu jox leen outils yi nga xamante ni moom la war a soxla pour mën a voilà seen seen seen seen life gën a better quoi seen life seen vie gën a neex quoi tu vois je pense que loolu ngay def à chaque fois ci sa application yi pour que permettre nit ñi euh, ñu mën a am euh, ay yoo xamante ne leen yombalal seen vie tu vois di leen fàttali di leen eh, di leen alerter ci julli yi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni je pense que euh, dina ñëw alors Ibrahima épisode bi jeex na nag tey lan moo nekk sa mot de la fin waaw euh, di lay jaajëfal rek di wax euh, di jaajëfal auditeurs yi tamit mhm. euh, bon di leen wax ne man lépp lu may def se c'est documenté sur mhm. principalement sur Twitter dinaa la bàyyil sama xendal Twitter aussi pour ñi mu intéressé ñu ñuy xool process bi may jaar en tout cas pour développer application yi j'aime bien partager li may li may def mhm. parce que ñeneen ñi tamit moom si jëriñu donc si ça vous Daves aussi euh, voilà euh, lien bi ça sera disponible. si si notes yi incha allah di ma voilà di leen jaajëfal voilà incha allah dina la partagé di lay jaajëfal yow bi mhm. euh, comme ni ma la ko waxee woon rek c' est c' est vraiment toujours un plaisir di ñëw di mhm. di di échanger ak yow. Mhm. si astuce bi ñu suñu borom may. di si bénéficier lu auditeurs yi incha allah di di jaajëfal ñëpp. alors maa wax ne maa alors Ibrahima maa ngi wax gars yi nag en spoil xamle ci lan la sax mais alors week-end bii di ñëw nañu ñëpp xaar ah, dinañu àndaat ak Ibrahima waxtaan ci beneen <laughs> système d'exploitation boo xamante ni ah, bu am am solo la mais bëgguma wax nag ban la quoi mais du ma du ma spoiler quoi <laughs> mais damay bàyyi noonu rek ah, bu week bi di waaj ñëw peut-être comprendre ba pare sax non mais gars yi dañuy jëli quoi <laughs> <laughs> dinañ àndaat ak Ibrahima comme ça waxtaan ci benn système de partage boo xamante ni bu fekkee xam ngeen ko nag mu ngeen def ci commentaire yi euh, moo xool ndax gars yi dinañ jëli affaire bi quoi mais euh, système d'exploitation boobu mais mais je te jure parce que euh, en fait man xamoon naa ne système d'exploitation bi yow laa ci mën a waxal mais après laajte naa yeneen nit aussi kan moo mën a wax ci système d'exploitation oh, maa ngi bëgg sax spoiler quoi ci système d'exploitation tel système d'exploitation mais gars yi dañ mën a diriger vers Ibrahima Ciss Ibrahima Ciss Ibrahima ah, Ciss mën a wax <laughs> non ma ne lii lii je pense que waa lépp ah non mais. c'est cool spoil naa ko wax naa ko nag wax naa ko nag c'est fini. <laughs> <laughs> alors donc kon semaine passée dinañ waxtaan ci Mac OS incha allah avec Ibrahima Cissé incha allah na ko ñëpp xaar incha allah et dinañ ci xóotal bu baax a baax wax ci ay affaires yu yu kéemaane nga xamante di ngeen xam exactement lan mooy système d'exploitation boobu noonu nga xamante ni moom la waa Apple defar. allez merci beaucoup les gars euh, maa ngi leen di fàttali aussi que ne à chaque fois mun ngeen euh, dem télécharger ay applications yu ci mel ni ay Google euh, podcast wala Apple podcast wala Spotify wala yeneen ak yeneen yu ngeen lu leen neex rek tu vois wala ay Anchor pour mën a déglu podcast wala. foofu teg bi mën ngeen aussi abonné directement ci plateforme yooyu nga xamante ni à chaque fois boo épisode bu bees duggee di ngeen jot notification mais nag aussi bu leen fàtte partager épisode yi sur les sociaux parce euh, très bien li ñëpp mun cee jot comme ça mun cee bénéficier boo ko jotee rek yow boo ko gisee rek partagé waat ko comme ça ñeneen ñu mun cee jot incha allah allez merci beaucoup Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal bu baax. jaajëfatee allez merci beaucoup les amis à